loo xam ni gis na ca biir bu yàgg te yow xamoo ca dara waxoon naa leen fii de ci ndaje Serigne Mourtala ni leen li gën bon ci àddina mooy nga utal yow sa bopp ay noon taxaw fii naan bëgguma Serigne Fallou yow tey bëri ngay noonu te yaa ko utal sa bopp taxaw fii naan bëgguma Serigne Babacar Sy yow dolli nga say noonu te yaa ko dolli sa bopp bàyyil ku la ko utal moom ay noon waaye yow bu ko utal sa dee ñun ñi dee ñun àndal. amul lu may doxal. amul lu may doxal. depuis 1968. depuis 1968. te aw ma ca ndigalul. te ma ca ndigalul. xalifa ba ca ñoom ñoo la gën a xam li xew. foofu. thème ñu génn ku bañ a suufe ba faw. ku bañ a suufe faw. mbaa nga fay ba faw. te ci wax nañ ko accès ngir rek ngir rek nit ñi rafetal làmmeñ yi te leeral xol yi loolu sëriñ ay sànnee na ci ñëpp bàyyi xel rafetal làmmeñ yi te leeral xol yi loolu mooy diggante jikko ak melo ay seex. nekk ay seex. nga nekk sang. waaye bu ñu àndul. mu jóge ca baar ba. mu jóge nga naan ak rafet xol. waaye melowaa tax nga ni. mu ngi ter melokaan la melo ak jikko bokkuñu am na koo xam ne du la saaga du la xas mosulaa tooñ mosul gis ku mu tooñ mosul gis ku mu yàqal waaye bu la rombee ci mbedd mi rek nga jël sa làmmiñ ba tàbbi safara ngir moom allah moo tax yi buñ leen xàmmeewul daañu déraper Sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu daana wax loolu ab Cheikh Hadj Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu Sëriñ Sànne moo ko nettali. yàgg na ko nettali itam. bu kenn wax ni tey la ko wax. yàgg naa ko nettali. mu ne. ku fi jóge mën na nekk. waaye li fi yàlla def du fi jóg. mu ne sama mag du tedd. Cheikh Seydi Aboubacar Sy. neena. fi jóge mën na waaye lu fi jóge dootul nekk gis nga ba mu ko waxee ba léegi la dolliku gannaaw moo ëpp lim fekke la dolliku gannaaw sax Seydi El Hadji Malick lenn rek lay bañ ndax musuma dal su ne Issa Touré mere na kenn loolu du mës a am soo taxawoon fii xëpp nga suuf gars yi ñooy réagir waaye ni nga ma gisee may def may fopp rek waaye du ma jóg fu ma toog. te dama lay jéggal. ba mu wér yàlla xam nu muy def ak yow waaye xol bi lu ma la ca nasal ngir yàlla duma la mu yàqal la nekkul ci man loolu jéggi nañu stade boobu kon daal sëñ ay sànne ñu ngi ñaan ngeen dégguñu ñu gën a am ak dëgër

te lu mu dee dee dee ñi ma jox wér su matul cent mille personnes dina ma jaaxal. te mosuma fàttaliku fu ma laajee hadiya ab taalibe bi ci def itam lu mu dee dee chaque semaine dinaa recevoir plus de cent personnes yu ma mosul xam. te ñoo ma soxla te musuma fàttaliku fu te la ngay def ay sarax nekku ci loo ma mën jox ay sarax duma ca lekk un ndax am na lu ma bëgg doon waaye doonuma ko nag wàllu yi du lekk sarax waaye nag bëgg naa ko doon ture yàlla ko doon képp koo gis ñu dajale yalwaan mu lekk ko ku baax la waaye àggul ci wilaaya loolu moom du samay wax wàlli du lekk sarax loo ko ko jox jox fet lu ko feneen la koy jëme waaye du ko lekk mas naa cee waxtaan ak kilifa gu mag mu yor ay njaboot di yalwaan moom ci boppam mu leeral ma gis nga ko de wax ma fu mu ko jëmee ma am na cër loolu ñu ngi leen koy bàyyiloo xel góorgóorlu leen dinaay faral di wax yi may daj bu fekkee ni yàlla taxul maay gën a métti ñëpp duma ëllëg turi yàlla tax bu yàlla taxul dina sonn ne wallaay turi doo sonn mais toog nii rek bàyyi sa bépp soxla te utoo ca un franc luñ la jox fii nga toog loolu nga koy roppaatee joxe ko ba mu jeex su jeexee nga génn la nga denc jox ko korose waat sa loxo bu yàlla taxul nga xam dama ko wax xale yi bu suma gis dara wàcc ci kër gi fii fii ci kër gi ci daara ji ñu ne daara jee ko moom ma mës ko gàddu dugal sama kër soo ma indi loon vingt tonnes ceeb du génn daara ji benn sàkk ci dugg sama kër la tax nga indi ko fa ca laa koy yemale muy daara ji demal képp dañuy xëy di peese ceeb peese laa la wax te su ma neexoon yónnee fa ceeb bu bari waaye du ma ko def joxuñu ma ko pour sama kër dañ ma ko jox ngir daara ji. nga dem Dakar soxna Mbaye buy togg ci bitig ba lay dem peese te su ma neexoon saa yu muy génn fii jël saaku wàcce ci oto bi. waaye mukk luñ la jox lu ne nga ñu ko tudde amal maandu yemale ko ca loola seet pour jàngal leen toujours aw doxalin aw doxin aw defin ngir lépp baax sëñ ay sànnee mu ngi nuyu ñëpp surtout suñu mbokk média yu baax yi. mboolem télé yi ak rajo yi ak seeni rajo jël lépp en depuis ci suba ba léegi Afia ngi nii BTV ngi nii waa Sangalkam waa Bambilor waa zone sept ak waa arax araxam TV fa tabaarakallaahu sopp nabi l'officiel ñu ngi fi sopp nabi l'officiel ama alxaaji rasul mbay tabaarakallaahu ak alxaaji baat ñu ngi koy sànni direct ci daw ji muy dem ci jamono bi yal na leen yàlla fay sëriñ bi nee loolu rek la doon dolli suñu mbokk jëwriñ jërë ngeen jëf alxaaji Ousmane Ndoye alxaaji Samba Tall délégation bi ngeen àndal sama jigéen bokk ci di jàppaatu alxaaji Babacar Kébé Mbay Kébé di Adja Fatou Gueye Diallo sopp lool ala jam bi nee na ba tey dégg gu ma daarul xabibi xanaa sëñ bi may ma une minute nee mu ngi nuyu bu baax maam Ousmane Ndoye mais di suñu doom di suñu jarbaat nekk nit bu social su ngeen demee fee ca daara bi bopp bay maya ndox ma ñi cay jàpp di ca naan di ci togg di ci jàngu yàlla di ca roose gàncax ga muy pompe solaire alxaaji maam Ousmane Ndoye mi moo ko financé yal na yàlla financé sa mbir yëpp. te boobu ba léegi. pexe bu ne mu ngi koy def. ngir ñoo bëgg a jàppale. moo tax. ñu ngi lay bàyyi xel bu baax. suñu insaanee yow xolam moo la ñeme. léeg-léeg nit ko lu ne. bëgg collaborer rek moom. ci alalam. waaye nee bu ñeme. dem naa ba maa finance. moo war a indi casier judiciaire rek. millions yu ma mën a jeté ni wóorul. ñëpp mer sëriñ bi ne yal na leen yàlla dolli ay sutura ci seeni projet ak seeni xalaat ak seeni doxalin sëriñ bi ne ñu ngi leen di bàyyi xel ñeme nañu collaborer ak yéen ndax njortuñu dara yëguñu dara itam ci suñu xel ak suñu xol luñ leen di ragale te xam nañu say bokk jërë ngeen jëf yal na yàlla dolli sutura yàlla faj aajo yi xolli toy ba